d'accord mais gars yi bu ñu jàppee ne dafa am lu leen di wàññi ba tax ñu leen koy sànni ay sala man du ma ko def man dama leen di jàppale ñu liggéey réew mi mais sama cofeel ci Macky Sall man Macky Macky ma gën a ñëpp mais mais euh, Adamo gis nañu influenceurs yi yéen influenceurs yi mhm. euh, gis nañu on se rappelle euh, problème bi nga xamante ni c'est cinquante PN mhm. influenceurs yi duggoon ci politique bi ñu gis Adamo aussi defoon ay sorties doon leen sax menacé pour que contrat bi ñu signé woon ñu dakkal ko ndax da jàppoon ni que ni dañuy politique di nax jeunesse bi mais dañu gis que ni influenceurs yi aussi léegi dañu fa euh, dañu faral jege loolu ñi nga xamante ne ñoom ñooy politiciens yi benn question. muy que est-ce que bëgg lu yomb la ndax xëy na euh, fa la alal ji bare ba tax. Euh, tey aussi ñu mën a utiliser terme bu ci mel ni. transhumance ci influenceurs yi ndax gis nañu aussi euh, wax jaa ngi aussi commencé bari ak transhumance bi ci président Bassirou Diomaye Faye ak ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko te pourtant ñu ci bari démb ak barki démb xëy na seen ay kaddu nekkul woon kaddu yu tey. loolu aussi naka nga koy jàngatee influenceurs yi de manière générale avant que ñëw ci yow particulièrement waaw influenceurs yi xam nga leen ñoom gëmuñu dara ñu ci bëri ci influenceurs yi di woowee seen bopp influenceur mhm. gëmuñu dara gëmuñu lu bëri waaw ñoom dañuy wax ne kii lañu fanaan boo lëggee ñu dem fële mais Sonko dafa ñu bëri dañuy utiliser image am pour buzz bi soo awuskiti ba mu fi génnee ne Ousmane Sonko commencé fen ñëpp topp ko léegi ñëpp wet nañ ko xam ne ne buzz nga ci dugal ñu bëri bu ñu bëggee buzz man foofu laa wuteeg ñoom bëgg nit ñi di leen dañuy dem ci Ousmane Sonko di wax ci Ousmane Sonko boo leen laajoon Ousmane ko kuy yaayam duñ la ko wax luy procès bi mënuñu la ko wax noonu nan Sonko Sonko rek nit ñi di leen topp amul njariñ amul sens. nañuy Sonko Sonko rek euh, ñu topp. waaw topp leen. amul sens. d'accord léegi ñoom ci ni ñu tàmbalee kii di président Bassirou Diomaye Faye ak. Euh, Ousmane Sonko gis nañu euh, critique bi euh, ak euh, opposition bi en tout cas coow li bari na. Mhm. ñi di wax que ni postes yi ñu mujjee joxe muy les directeurs généraux gis nañu ku ci mel ni Pape Alé Niang. Mhm. coow li ñii ni que ni ñoom dañoo séddoo gato bi seen biir ñii ni que ni waxuñu woon loolu sénégalais yi tàmbaleeguñu mais coow li bari na. Mhm. naka nga gisee déjà li ci am mooy. Mm. Sonko dafa waxoon dañuy def appel à candidature maanaam ku sa diplôme kawe kooku la jël. pu mais garaawul parce que xam nga lan moo tax. lu tax parce que Pape Alé Niang pop doo Sonko ko tànn de man Pape Alé Niang jàpp naa bi ñoo ko tànn population bi ñoo ko bëgg a fayee maanaam li nga xam ne daj na ko pour Sénégal ñu mën koo fayee directeur u bi moom ñëpp moom lañ doon waxtaanee di ko def. Mm-hmm. mais Sonko tamit nit la mi ngi ci internet gis lépp. Mm-hmm. ci loolu lay mu def li xam ne peuple moom lañ bëgg ndax peuple bi ñoo ko fi teg loolu moo tax mu teg Pape Alé Niang te Pape Alé na ko parce que daj na lu ne. Pape Alé dem na kaso ñaari yoon feebar na fi def na lu ne pour projet bi bu fekkee mën na koo diriger am na dipolom amul diplôme du jariñ nan ko ñaanal yàlla rek mu doxal RTS jëm ci kanam àdduna amul solo nanu yéenante lu baax lii daal laa gis man léegi ñi ñi ñi ñi opposé wu ñi ñi ñi yëkkate ay kàddu yoo xamante ni euh, boo ko déggee maanaam da ngay jàpp que ni lii nii dafa teel déjà pour ngàññ bi euh, parce que un mois kese la ñu fi defagul lan ngay wax opposition bi ñi nga xamante ni euh, ci yéen la ñu faroon waa APR tey ñu nekk ci plateau télé yi mais seen wax à chaque fois boo ko déggee ay critique la mais nekkul ay encouragement ñu gëm yàlla gëm yàlla daal laa leen di wax parce que mënuñoo mënuñoo wax a wax a wax a wax a wax ban ne tey opposition bi kaas na jumay day wàcc amul tant que mandaawam cinq jeexul te bu nu dof dof loo nekk fii di xas ak di ŋàññi ba merloo population bi dañuy jox jomay cinq ans jox Ousmane Sonko ko ans jox El Malick cinq ans jox Waly cinq ans keneen ak keneen cinq ans cinquante ans nag bu ñu ko defee xanaa cinquante ans kenn du ko toog di opposé wu dañuy ñàkk nguur gi parce que gars yi ni nu folee jumay mën nañu ko folee keneen ñoom ñu yàgg ci opposant bi nanu réglé te yàlla kii bu doxalee ñu ànd ak moom bu doxalul nag ñu ŋàññi ko doo a wax ak moom mais man jàpp naa ne yi day doog a toog te mi ngi doxal te amul yenn expérience yi. Mm-hmm. mais comme que Ousmane Sonko kuy gunge di ànd ak moom mais alhamdulilah nanu gëm yàlla gëm yàlla rek lañu war a def daal du leneen. Euh, député yi nekk ci bennoo euh, dañu dégg ñu yëkkati benn coow muy wàllu motion de censure loolu la aussi day mel ni euh, luy jafeel trop kii di président Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre am Ousmane Sonko ñu doxal. Euh, ñu dégg aussi que ni kii di président Macky Sall depuis Maroc euh, aussi mu ngay déggante ak député yooyu la euh, comme yow sa waay la. Mm. lan ngay tontu ci ñi jàpp ni kii di Macky Sall ak député yi donc ñoom tey seen taxawaay mooy saboter li nga xamante ni moom mooy présidence bu Bassirou Diomaye Faye. c'est faux. waaw parce que président Macky Sall Diomaye la gën a jox nopp jamono jii. Ah bon président Macky Sall jamono jii moom ak Ousmane Sonko réerewul moom ak Diomaye réerewul. Mm. gars yi dañuy déggante gars yi dañuy waxtaanante seen biir président Diomaye mm-hmm. ak euh, Macky ak Ousmane Sonko réeroowul man xam naa ci dara loolu Macky jamono jii nii jàppale Sonko la gën a jege ka jàppale ñi nga xam ne danoo danoo nekk ci ci ci ci ministre yooyu nga lim noonu kooku man maa la ko wax mm-hmm. waaw d' accord euh, Fafa par rapport ak politique bi ndax xam naa ni que ni. mënu euh, see ñàkk voilà mënu ci ñàkk avant que ñu jàll ci kaay yi. Mhm. <laughs> ba tey ñu desandi ci euh, foofule maa ngi maa ngi lay tooñ sànq naan la président Bassirou Diomaye Faye polygamie gis nañu vraiment li nga xamante ni moom mooy ñaari soxna yi ak taxawaay bi la première ak deuxième dame mhm. te yow waa ngi yaa ngi ko wax sànq kii di Marème Faye Sall ak fondation am tey. loolu la naka nga ko gisee déjà ñu am président boo xamante ne am na ñaari soxna. Euh, soxnay président tàmbaloon ñu ay fondation yoo xamante ne dañ te daan def loo xamante ne day jariñ askan wi ci ay social. Euh, loolu sax moo waral ba ñu daan neexoo ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy influenceurs ci mel ni yow tey ñu am président boo xamante ne ñaari soxna la am. ñaari soxna yi li di yéene mooy ñu bañ a siisante rek ku nekk aawo ñaareel bi jox ko cër rek te xam ne yaayam la tantam la ñu ànd ñoom ñaar doxal première dame lépp mën na xew yaa ngi dégg ñu liggéey parce que xam nga ñu jàppale juma yi waaw Marième Faye Sall moom beneen affaire la kooku moom beneen affaire la nit ku baax la Marième Faye ku baax a baax a baax man xaw ko du ma dégganteeg moom mais nag miin naa ko miin naa ñu ko xam nit ku baax la ku ku ku am yërmande la ci doomu aadama waaw mais nii la président juma yi ñun danoo soxla danoo yàlla baax na sa président am président boo xam ne ni day am ñaari soxna am président boo xam ne tamit day am baay buñ ko tooñee ñu man a dem ci papaam kalaame ko. mën a régler problème yi lii dafa neex. <laughs> macha allah toog muy dox Adamo. kooku jeex na fi. <laughs> yow noo jàppee toog noo jàppee muy dox. waaw surtout toog ah. toog muy dox noo ko jàppee ak kat moo ci bokk. parce que version yi dafa bari toog muy dox nee na gars yi nañ dafa bari version Adamo lan nga jàppee toog muy dox. est-ce que dama ci ah. duma dina dé duma dina déet de. dootuma tuddati ay nit de ndax lu ne laa ciy dégg mais dama la. juma yi daal jëlee na ko fi ku bëgg tedd moom di nga liggéey. Hmm. toog muy dox moom toog nii rek muy dox. jeex na jeex na jeex na. ñi ñi ñu jàpp ñi ñu jàpp ne dañoo luubal alalu réew mi ñu leen di woowee euh, réduction des comptes maanaam audit yeeg rapport yi nga xamante ni euh, wane na lu bari. ci ay autorités yoo xamante ne ci jamonoy Macky Sall euh, dañoo jël lu ñu moomul. loolu lay aussi da nga cay encourager président Bassirou Diomaye Faye wala da nga ci am beneen gis-gis. waaw man li may encouragé président Diomaye mooy. waaw képp koo xamante si da nga jël xaalisu réew mi mais da nga ko war indi parce que moom moo ko su fekkee am nañ ci preuve ne ñoom danoo sàcc xaalis xaalisu réew mi mais nañ ko indi parce que loolu mooy yoon ndax mooy développé Sénégal parce que Sénégal bu génnee la bi ay milliards yu bëri mais da koy fayat milliards yi ñuy def nii Sénégal avancé wul parce que Sénégal bu avancé woon yenn leb yi yu bëri yi duñ ko leb nan waxante dëgg mhm. suñuy ressources yi nan koy utiliser dama ne ku yor xaalisu réew mi na ko génnee teg ko ci taabal ji man ànd naa ci loolu xaa ke li may bañ kay mooy ñu taqal nit tuumaal ko te sàccul mais képp ku sàcc mu leer ni kii sàcc la na jël xaalis bi indi ko ci sunu kees man nañ ko bañ a tëj mais na delloo sunu xaalis mais en tant que sénégalais en tant ngay gis ñenn ñoo xamante ne ci régime bi lañ nekkoon avant ñu leen di fal li ñu amaan euh, xëy na euh, bariwul ndax dañ daan teg bët euh, après ñu jeexal mais da ngay dégg ay immeubles yi ñoo ko moom oto yi ñoo ko moom tey nga dégg leen États-Unis seen famille donc est-ce que tey bu ñu waxee aussi que ni ñooñu dañu luubal lu xel mën a nangu la waaw dama ne la képp ku koy wax daal na fekk nga am preuve ba lu luubalee luubal bu set wecc tamit te yëruñu ci benn preuve amul njariñ mook zéro yam <laughs> képp ku ne diw sàcc na na teg ay këyit yu leer fi diw jaaroon ba sàcc teg ko ci taabal ji Sénégal yi teg seen bët ñu jàpp lépp mais bu fekkee yoroo benn preuve même bu yoroon téeméeri immeuble boo ko dee tudd amul njariñ tubaab kayit la xam mais nu waxante dëgg. amul njariñ. d' accord tubaab kayit la xam euh, mais en en attendant rapport yi génn Sénégalais yu bari lire ko am na ay tur yoo xamante ne ñu nga cay ñu nga ñu nga leen cay dégg. Mm-hmm. Euh, donc on attend en tout euh, di xaar li nga xamante ne noonu lay foofu lay mujjee. yàgg na noonu. yàgg nañoo dégg ay nit ci ay rapport te dara du fa mujj xam ngeen Sénégal ni muy doxee yàgg ngeen ko dégg loolu. mais foofu la jàppoon ne kii di président Diomaye ginnaaw rupture la woote. Mhm. différence mën na am cette fois ci. waaw léegi ñun ñi ngi seetaan di déglu Diomaye ñi ngi fi tantôt ñun ñi ngi fi Diomaye lu mu def dinañ ko wax incha allah. waaw. Hmm. Ah. très bien mu ngay euh, naan ñu permettre ko tuuti rek mu souffler euh, yéen intervenants yi aussi ci ngeen bokk si vous avez des questions ku ci mhm. nekk aussi mën na poser question mhm. kii di. Euh, Adamo bu ko defee voilà ñoom tamit euh, ñu yeggee leen ko euh, ñu dugg ci troisième pacc bi ci kaay. waaw kaay mënta ñàkk. <laughs> people bi xeesalkat yeeg ñoom maam Ndiaye Savon ak. <laughs> ñoom seen coow li bari na gosoom ummi. waaw doy na waar macha allah. <laughs> mu euh, fi ñuy fi ñuy fi ñuy njëkkee rek am. mooy ci li nga xamante ne si moom mooy xew doomu Aziz Ndiaye bi nga xamante ne euh, génn nañ ci lu yàggul dara. Mhm. ñu gis ni ko macha allah dëgg yàlla mu xewal doomam xew mu neex nag xaalis ba bari lool mhm. millions ya bari lool macha allah euh, mais euh, ñu dégg tamit ay wax yu sew yoo xamante ne si mooy loolu noonu parce que dañ nekk pourquoi du ñu woo Aziz Ndiaye laaj ko alal ji nga xamante ne si nii mu ngi ko mu ngi ko mu ngi ko génne jour boobu ci xew doomam bi. Mhm. dafa bari ñii naan est-ce duñ ko audité ko affaire yooyu noonu ku ci nekk. nekk ak sa sa sa sa sa kii daal sa version am. Mhm. aussi tamit euh, ñu gis euh, benn doom baayam bu génn euh, xam nga gars yi moom mooy loolu fexe nañ ba dem di loqati benn doom baayam bu jigéen mu génn wax. te ni que wax dëgg yàlla Aziz ñoom ñaar ñoo bokk benn papa. mais jàppale na ko jàppale na ko ci côté yépp xay na benn côté bi la xaw a déranger nit ñi rek mooy jaay bi mu nekk di jaay ci marché beeg affaire yooyu noonu. lool lool moo déranger loolu moo déranger nit ñi mais moom ba tey waxu ci lenn ne si loo xamante ne si dimbali mu ngi koy jàppale Adamo naka nga gisee xew Aziz Ndiaye bi ak coow li nga xamante ne si am na ci. Euh, Aziz nit ku baax la. Sénégalais yi danoo soxor xam nga lan mooy soxor. li leen metti mooy. man lu ne man nga ko waxal Aziz mais doo taxaw mukk na Aziz Ndiaye xaalis bi mu am gouvernement bi la ko jëlee xaalis bi mu am da koo sàcc ci état bi xaalis bi mu am xaalisu réew mi la amul ku ne man nga ko waxal xaalisu réew mi ba mu des Aziz Aziz liggéey lañ ko xamee. papam nekk jàmbaar liggéeykat bu mag Aziz dama xam ne dañuy gis Aziz damay dem moom ba Paris di toog ak moom di waxtaan ak moom man Aziz damay toog mu toog Paris nit ku baax na waaw fu baax la bokk askan bu baax soxor moo leen jàpp ak iñaan waaw mais nan bàyyi Aziz te xam ne ni mu mel nii yàlla ko def te day gën a continuer ay jabaram ñu ngi ci jàmm miis Aïssa rakkam la ñu ngi dund ñu ngi ci jàmm kura kóra moom mën na am njaay choisir yaa ngi dégg bëgg a jaay mais fexe na ba defar image su magam donte bu fekkee ne Aziz dimbaliwu ko wala jàppalewu ko ci ci bëri mais génnul di ŋàññi famem wala muy ŋàññi Aziz foofu laa ko nawe ku baax la kóra maa ngi ni morom damay dégganteeg moom man dama kontaan ci moom de nii la mais da ngay sàng sutura sa sa sa famille ak fi nga dëkk ak fi nga bokk adduna daal nii la kontaan naa trop ci moom waaw kontaan ci moom macha allah <laughs> <laughs> na leeral na na leeral kaaw boos beeg umu beeg mbiru visa surtout surtout surtout foofu laa doon foofu laa doon bëgg a dugg. Euh, Adamo yaakaar naa yëg nga li nga xam te ne moom mooy euh, problème mu ummi ak boos. seen kaaw visa bi kii génn la kii génn lewul kii nee na du dem bàyyi kii kii nee na mënta dem bàyyi kii ñaar ñooñu jëkkër ak jabar yooyu noonu. waaw jëkkër ak jabar yi danoo ñàkk jom. déedwaay. ñaar ñu ñàkk jom lan te xamuñu seen bopp. parce que boos. mi man ma daan woo daan ma daa demoon li may dund daa demoon li may dund dafa metti su ma tëddee suma tànk bi day day day metti du mën a naaw xoolal sama yax bi nu mu mel ak ni mu génnee damay ruus sax beneen saa yi génn ci biti mettit bi dafa bëri ba yenu maanaa sa tànk day metti ba doon nen mën a nelaw looy def ci waali fekk démb la jógee foog borom tànk buy metti attan na ay sabar ah buy metti dafa ànd ak tama tama asan caam jooju san caam tànk bi da ko àttan ah man boo toog umbi ñi ñàkk fayda lan dajale xaalis ci réew mi yóbbu ko ñëpp dugal seen xaalis umbi déposé ñu may ko visa boos ne lànk waaye umbi du dem moom kese ndax moom mooy accompagnateur bi te du far force te umbi bu demee dafay fekk ay assistance yu ko man a yu ko mën a yor restel que mu ne moom da ciy la ngaa miitu dem te visa wu génn li ci yoonam boo la fa ñul dara jotu ko dafa ñàkk jom ci góor fi mu nag jamono jii nag visa bi leen mu jeex ndax 10 bi moo ci def léegi nag mu jeexee fa yàllaaw mais xaalis Sénégal yi dinañ ko delloo parce que ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqaloon nañ seen plainte ba jël avocat fay leen avocat yi te ñu ngi dem ci yoon. incha ah allah waaw ah loolu dégg naa ko ci si si dégg naa ko ci dégg naa ñu ne am na ñoo xam te ne dugal nañ li nga xamante ne moom mooy plainte. waaw dugal nañ lan moo xew lan moo xew ba ñu dugal parce que ñoom xaalis yi nga xamante ne si ñoo organisé woon engagé woon nañ ko mhm. ñoo teg koon lépp mhm. pour gars yi dugal xaalis ci numéro ummi ak boos ñoo doon dox lépp association bi dañ ñoo lépp ñoom xaalis rek lañ doon jot ñoom ummi ak léegi nag boos moo woote mu ne sama jabar dematul nan ma jox sama xaalis bi mu jotoon a am bi mu jotoon a dugal mhm. léegi ñu dugalaat ko ci kontan léegi xaalis Sénégal yi nag moom la ñuy demee ci soirée waali démb baali woon nan moom la ñuy tasaaroo ci lañ ubbi bitik ñoom daal ñu ngi noonu rek. ah wayaan ba ubbi bitigu askan surtout surtout bitig boobu parce que Adamo dégg naa la ngay wax naan euh, bitig bi euh, gis nga ni inauguré nañ benn bitig yaa ngi naan bitig bi sax buñ ko buñ ko buñ ko utal benn tur nañ ko nañ ko tuddee euh, alalu réew mi askan bi parce que alalu askan bi la ñu ibbee li nga xam te moom mooy bitig mais Adamo ñu ngi wax coowal visa si digganteem ak moom ak jëkkëram dafa war a tukki dafa war a dem faju ji tànkam bi yàggul coow li daanoogul sax ñoom ñu daal di ibbi li nga xamante ni si moom moom mooy bitig waaw parce que li des ci xaalis bi xam nga xaalis bi dafa dajoon plus de 10 000 euros la léegi nag xaalis boobu lañ jël ubbi ci bitik toog fàtte visa yi di liggéey. plus de 10 000 euros. Mhm. parce que ñii naan ñii naan 10 millions ñii naan quinze million ku nekk ak. ku nekk non 10 000 euros la 10 000 euros. d' accord 10 jotoon am. 10 000 euros lañ jotoon a am. waaw 6 millions yooyu lay tolloo rek. ay sénégalais ñoo leen ñoo cotiser ba mu mat loolu. ay sénégalais ñun ñii man mi dugal naa sama xaalis maam Ndiaye dugal na xaalisam. waaw Mame Ndiaye dama ko dégg tamit ci dégg naa ci coow waaw ah? Mame Ndiaye dugal na dugal na xaalis waaw ñun ñëpp dugal nañu Mame Ndiaye moo ay influenceur ay tiktokeur gars yu bari ma nag léeg-léeg nga romb si tiktok bi sax ku dëgg te jël boolam tëgg ne boos ak ummi ñu delloo suñu xaalis comme tukkeetuñu nañu delloo suñu xaalis waaw waaw ma am na ñoo xam dañuy comédie sax mën naa am dugalul mais ñi dugal bari nan de léegi ñooñu ñooñu ñëpp léegi dañoo taxaw pour ñu delloo leen seen xaalis waa mais man moom soxlaatuma li ma dugal maam mm. Ndiaye soxlawu ko ak ñeneen dañ ko defoon te yàlla tax mais eh, mais geste bi moo ñaaw quoi moom la ñuy ñaawlu. geste bi la ñuy ñaawlu. tey boo amoon message ah, booy lancé kii di boss wala man du ma jëlaat xaalis du ma jëlaat xaalis. message mais boo amoon conseil jox euh, euh, boss ak ki nga xam te ne si moom mooy Oumy. ñu bàyyi yalwaan. ñu bàyyi yalwaan yalwaan ak ñaan. ak di gàddu yaay ñu cëkk ñi di leen yóbbu ci plateau yi naan kii sama yaay mooy sama maam bàyyi ñu feebar ñeeg yu wopp ñu muy jël di ko jagar jagaree ci plateau yi boos ñàkk na jom borom tànk yu cëkk yi rek lay wut ak ñu patt ñi moom daal laago yi la topp rek. Adamo gars yi nañ nag yow da ngaa yëpp boos nag quoi da nga koo da nga koo da nga koo da nga koo da nga koo kii quoi da nga koo. ma fi génnee di wax dil bi a yàgg boo ma yàgg doo ko da nga di boos du du bu naturel moo ko dugal ci umu day utiliser ummi ci tànk bi lay yelwaane maanaam tànk ummi bi mooy fond de commerce bi. yaa ngi mariage bi. xoolal gis bis bu bis bu ummi amee tànk rek commerce boos day buntu boos yi day tëju wërsëgam day tëju léppay tëju boos dañuy yërëm di def ummi la yërëm ak tànk bi di def loolu ak loolu pour moom maanaam fond de commerce bi tànk bii la bis bu amee tànk rek ngeen fàtte lépp coow lu jeex maa leen ko wax. macha allah. <laughs> moo tax bëgguñu maam tànk. coow li coowal xeesal beeg. ak euh, maam Ndiaye Savon. day xeesal bi ak jojo ak jojo <laughs> jojo maa ngi gis picc yi. Mhm. maa koy seetaat maam sama xarit la. man ak moom 2012 la ba ma siiwagul laa ko xam muy sama yaay ci benn groupe ñu bokk groupe 5 ans seq lu bari jafe-jafe yu bari bu mu daan am ma lay woo ma jàppale ko ci ci néegu sëyam ak wàllam léppam man lay woo ma yónnee xaalis bi dimbali ko ci lu bëri sama yaay la sama lépp la mm-hmm. waaw booba yàlla def na yorogul